tuur ray nañ mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen ànd ak Leral TV Leral euh, point net ak leeral FM ñu am benn situation bi nga xamante ne moom lañu ñëw fekke fii ci ci quartier Lansar mu nekk benn ndaw bi nga xamante ne euh, oto moom moo ko daal di fiir euh, fii euh, ci talaata gi mu daal di faatu looloo waral daal vraiment bon tey fristration bi nga xamante ne askan wi amal nañ ko ñu jëmale ko ci li nga xamante ne loolu mooy oto yi di def fii ci commune bi mu nekk situation bi nga xamante ne bu critique la ndax askan wi fàttali nañu depuis boobu ba léegi presque lu toll juróomi xale jot nañoo faatu donc ci yoon bi ñu nekk nii ci bërëb bi ñu nekk ndax euh, li nga xamante ne loolu mooy occupation anarchique waaye mu nekk tamit aussi ay oto euh, yi nga xamante ne respecté wuñu benn yoon code de la route ñoom ñii le daal di xëy tey ci àllarba bi ñëw euh, di frustré wu di ñaawlu anam bi nga xamante ne moom la oto yi daal di def fii loole nag prox ndool na ci situation boobu wax lépp li jëm ci manquement yi nga xamante ne commune bu daal di ko am di interpeller le maire Moussa Fall ngir mu mën a amal benn taxawaay bu mucc ayib jëmale ko ci askan wi nga xamante ne eh, ñu ngi soxla lépp lu jëm ci wàllum infrastructure waaye tamit aussi ngir ñu def déguerpissement ci occupation anarchique yi nga xamante ne yooyu la ñu am pi ci talaata ji fukki fan ak juróom benn ci suba si ci atum 2024 Serigne Fallou Camara la oto daal di mbëkk mu jaare fa faatu foofee ci quartier bu Lamsar nekk ci tableau Tivaouane si saas ci ëllëg sa la population yi daal di jóg organiser marche ngir ñawlu situation bi ni mel bi nga xamante ne oto yi ñoo ko sabab. waa di dellu di masawu suñu suñu sœur bi rek. di am naqar ak tiis ak mbetteel gu rëy rëy ci li nga xam ne mooy tiis wi daanu démb suñu kaw di yaay joo xam ne aussi képp kuy yaay rek mën naa ni di papa li am démb metti na la parce que di foo ak sa doom même pas cinq minutes drame bu mel nii am lu méttee nii vraiment c'est vraiment vraiment déplorable métti na ba fa métti mën a yem ñuy masawu suñu sœur bi rek te xam ne tey jii ku ne mënoon na laa dal te di leen wax ne aussi lii c'est pas la première fois mën naa wax ne c'est la unième fois lii di am parce que quatre xale yi ci oto la mais am na fi keneen koo xam ne aussi ci charrette la amee woon ci même mbedd bi nga xam ne kon affaire yi mi ngi bëgg a jéggi dañ koy dundoo kër parce que ñëpp xam nañ ne tey Tivaouane Diacksao nous avons un problème de un comment de de leader wala de maire qui prend ses responsabilités. tey xam nañ ne le maire Moussa Fall c' est maire boo xam ne c' est un maire sentimental laa ko moo maire boo xam ne il ne prend jamais ses responsabilités te jàpp naa ne li nga xam ne tey je parle au au nom de tous les conseils municipaux ci dëkk bi surtout à Tivaouane Sarr moo xam ne madame la maire Amy Sila monsieur le maire Baral Amine ak ñeen ak ñeen yàgg nañ ko kaas. ci kanamam nan ko Moussa Fall le maire gis nañ dëkk bi ni mel surtout à Tivaouane Lansar xool entrepôt Thiaroye bi xoolal fëy na mi nga moom mooy Nestlé ba ci sax jàmm mais chaque jour ñuy gëm gëmloo nañu dem na sax ba doon naa ñu xaalis nangam nangam te que je pense ñëpp xam nañ ne li fi ne question de volonté la. léegi nag tey li xew démb gis nañ ko ñun ñëpp ñëpp mooy kenn ñun nekk suñu njaboot moom la oto fël ñàkk bakkanam ci saa si li ko waral mooy. dëgg la ndogal nag mais bu ñu waxatee dëgg nag anarchie bi nekk ci dëgg bi tamit cause cause na aussi euh, une problème aussi ba nga xam ne tey ñàkk na bakkanam tey. ak métti na ñu ngi koy jaale suñu xarit bi fan Fatma Fall ndax ku sañoon boo juree sa doom dangay toog ba yónni mu lay fajal sa soxla waaye xañ na nag lii la yàlla dogal di wax ne li ma ci wax moom du bari ndax li ñu waroon a wax yëpp daanaka macha allah sama moromi conseil ñi nga xam ne ñoo ngànk dëkk bi wax nañ ko di wax ne lii daal Moussa Fall la ñuy wax ak man du ma wax ak kenn lu Moussa Fall Moussa Fall monsieur le maire woowoon nañ la woowaat nañ la woo nañ la léegi nag mbind mi ci boppam sax duutu am duutuñ bind kenn tey génn nañ premier point lañ la defal nii première première guu lañ la defal nii deuxième guu bi bu ñëwee ñun xam nañ fi ñuy jaar ndax nag ñun waa Lamsar ku ñu yab nag dañoo bàyyi suñu yoon ndax ñun xeex rek lañ man xeex rek lañ man te lépp luñ mës a xeex nag gañe nañ ko keroog ba nga xamee ne ndox mi daf ñoo sonal fii ci ay minutes yu néew lañ tëb rek dugg ci autoroute à bi waaye balaa ñuy tëdd yaakaar naa ne benn ndox amatu fi keroog bañ bëggee am passerelle boo xam ne dañ koy jàllale pour wàcc jëm ci biir camp bi di dem marché yooyu dañ koo xeex ci ay minutes yu néew ñu may ñu ko kon ñun liñ ñu xamee dañ koo bàyyi tey nag woo ngeen ñu ci yar woo ñu ci dal woo ñu ci teey fekk si na leen ci nag ànd nañoo ak yéen ndànk doxantu doxantu bu ndaw may wax na doxantu bu ndaw la doxantu boo xam ne dañ leen koo may nag ci deux jours yow Moussa la maire Moussa Fall yow ak SM ñu ngi leen di ci lii su fekkee ne munu leen ñu jàll ci préfet ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo gën a kawe ndax loolu lañ soxla ndax borom réew mi daf ne jub jubal jubbanti kon Moussa ñëwal nga jubbantil ñu dëkk bii jubalul ñu ko tegal ñu ko ci ay loxo yu wóor ndax mënuñu nag saa su nekk su ñuy doom di dee ci loo xamante ni dañuy jàkkaarloog moom te mënuñ koo faj juróomi xale dee nañ ci yoo xam ne du mujj fenn waaye xaw ma ban lan daan bàyyi mu dem ndax bii moom kenn du ko bàyyi. ko fee ba sànni ko fi kenn du xam kenn du xam fekk dañu fi am néew. fekk nañ fi new fii kuñ ko wax doo ko gëm nag mais am na fi ba léegi amul siwit amul benn lu ñu wax ne lii moo ko rey wala diw fii la dëkk wala dara. amul lumière amul dara. amul biñ ko defaree ba léegi curé wuñ ko amul lumière amul benn entretien population bi ñoom ñoo koy defal seen bopp te loolu dëgër yoon. que nañu seeni bàkkan ci gox boobu loolee yépp dara waralu ko lu dul ay oto ñoo leen rey foofe ci anam yu mel nii. ci biir koñ. Sarr kaasuñu dara su ma waxee ñu ne dañ ñoo yar dañ ñoo yar léegi dañ ñoo yar ba suñu njaboot nar a jeex pour lan pour lan léegi nag trop c'est trop lii waxuma leen ëpp mais dafa tuuru dafa tuuru parce que juróomi doom yu gaañu ci koñ a nekk ëllëg kon nag woote nañ wooteeti nañ monsieur le maire ultimatum lañ la jox dans trois jours boo réglé wul suñu situation ñun dinañ réglé suñu problème à notre manière waaw mais dañuy jox maire ultimatum ultimatum ultimatum lañ koy jox di ko xamal ne lañ daan def du am suivi bii du ci bokk incha allahu rabbi dans deux à trois jours bu ñu gisul résultat ñun dinañ wàccal suñu bopp sur le terrain fajal ko suñu bopp à notre manière. defe naa ne population bu wàccee fajal boppam dina metti kon nag moom mi nga xam ne moom mooy suñu autorité local moom la ñuy wax na wàcc sur le terrain taxaw ci li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg askan wi parce que ñun li ñu bëgg du loo xam ne lu jaaduwul la li ñuy revendiquer day suñuy droit te nag suñu droit boo xam ne droit bu absolu la bu ñu jógee ci moom ñi ngi woow monsieur le sous na wax ci lii na taxaw ci lii parce que bu ci monsieur le maire amul benn compétence moom nañu ci taxawal en même temps ñuy jox waa Eiffage aussi di leen jox ultimatum parce que liñ ñu def dafa jaaduwut. ñun ñu nekk moom ci conseil bi xam nañ ne nit ku am fulla la ci li muy def man jàpp naa ne déguerpissement bi tardé wul ci moom man dama jàpp ne bu bu bu desewoon ci sous-préfet rek mbóoj kon tey réagir na bu yàgg yàgg yàgg li ci des rek mooy l'autorité administrative bi nga xam ne moom moo nekk fii à Tivaouane Diacksao moom moo manque moom moom manqué d'autorité léegi nag comme jëm nañ ba fii ba cappaandaw ga lii naan trop c'est trop trop c'est trop balaa leen compté nañu benn ñaar ñett ñeent buñ jugul ci lii dinañ demaas juróomeel tana laa xaw la wala xawata balaa juróomeel a jot ñun population Tivaouane Lansar dañ koy dañuy taxaw nag dañuy taxaw nag xam nañ nag nuñ ko mën a defee bu réagirul ci côté bii ñun dañuy réagir dañuy réagir ci benn côté damay wax tamit ci turu conseil municipal yi nekk Tivaouane Diacksang yëpp li woo ko fii ni moo xur yëpp yëpp nous avons un maire qui na prend jamais ses responsabilités le maire Moussa Fall du jël see responsabilité c'est un maire boo xam ne léppam sentiment la te sentiment doxalul réew. deux jours lañ la may juróom ñaari fan moom lañ la may su fekkee ne réagiroo ñun dinañ génn def suñ manin woo nga ma téléphone nee naa la du ma la wuyu ndax tiis bi dafa dalaat suñ kaw aw maa yow lu may wax ak yow. yow yaay wàcc ñëw ci population bi nga taxaw déglu ñu lépp loo xam ne suñuy jàngoro lu ñuy saafaral nga ñëw saafaraañ boo ñu ko mënut am na ku la sut fii ku nekk am na ku la sut nga dem wëri ña la sut nga ñëw fa ko parce que toog nañoo yow toog nañoo préfet dégg nañ li la préfet wax yow lay xaar yow lay xaar yow lan ngay xaar Moussa ñun ñoo sonn ci jaale bi ñuy jaale dafa doy soxlaatul nga ñuy jaale dañoo bëgg nga ñëw fajal ñu suñuy soxla suñuy métti yow yaay suñ maire ñun ñoo la votel yow lañ am droit wax la ak sañ-sañ su ma paree nag ma dem ci waa ñi nga xam ne ñoo fi def ba kii bassin yi. EFAS APIX yéen dama leen woo direct du ma ko jaarale ci kenn yéen man maa leen wool sama bopp li ngeen ñu defal laajuñ leen ko woon waaye mujj nañu sonn xanaa ñun dëkk bépp ñun ñoo ci gën a sonn. ba tax na askan wi dëkk foofe ci lamsaar di wax it lépp lu jëm ci wàllum occupation anarchique mbedd yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox boobule. mooy moo li waxoon si njëlbeen rek xam nga cadre de vie dafa bokk ci dund maire yi am ambition yëpp wala maire yi naw seen population bi gis nañ tey ni ñu def demal fële sa Kër Massar le maire bi Bilal Diatta demal fële sa Colobane kon jàpp naa ne tey monsieur le maire Moussa Fall parewul pour saafara kon ko ma jafe-jafe yi nga xam ne population Ndiakhou Saw ñu ngi koy dund surtout waa Tivaouane Lansar ñëpp xam nañ occupation ANACIM mécanicien yi fële foofu foofu seen place ñëpp ne euh, dëkk bi li ñuy dund métti na ci côté euh, euh, ci côté occupation yoo xam ne mécanicien yeeg su fu weex fu neex waaye teg kanting ak ak leen ak leen kon camion yi nga xam ne dañuy dugg ci biir dëkk bi. camion man li man li ma jàpp ne ku mën a jënd camion quinze millions de francs CFA am nga mën nga am. possibilité dem fay parking loolu outil benn benn benn problème la li ma jàpp tey mooy monsieur le maire Moussa Fall la population teg saw fii Tivaouane Lansar dañ naa la ñu sonn nañ tàyyi nañ te gis nga tey forte mobilisation bi nga ne moom la population bi def di naxarlu liñ Lansar nag Tivaouane c'est une population très éduquée parce que bu ñu neexoon tey ku ñàkk sa doom ñu xëy tey bàyyi tale bi pos posu caaro yi mais defuñu ko ndax lan dañoo xam ne lépp loo gis dañ koy dafa am loo xam dañ koy wane ba pare parce que discipline mooy lépp lépp mais nag man jàpp naa ne bu la maire Moussa Fall amul jëlu engagement personnel def déguerpissement man jàpp naa ne état bii di ñëw mooy gën a métti comme liñ Sonko di wax rek garsa garsa lay doon boobaa incha allah. man sama morom ak keneen ak keneen ku nekk da nga jàpp ne sama bopp rek. man su ma baaxlee ñi ci des sama yoon nekku ci te loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo ñu sonal moom mooy li yàq dëkk bi mën naa ne ndax yow tey ji boo defee lu jaaduwul bu nit waxee sax danga naan dafa soxor wala dañoo soxor dañ ma iñaane fekkante ne demeewul noonu lu dul yoon du yoon peut-être lii fi am tey jii am na nu voie bi doon libre peut-être dogal yàlla ñëw na mais aussi doon nañ ko mën a moytu parce que tey suñu mbedd mi bu fi oto di tasee xale amoo fenn foo mën a dévier pour moytu xale bi yàlla moo lay dimbale rek nga am maîtrise ak contrôle mais sinon dina metti à chaque fois bu ñëwee. est-ce que le maire là il est là pour la population ou il est là pour lui-même de toute façon nous localité de Tivaouane Lamsar on ne voit pas ce que le maire a fait pour nous pour mesurer tout simplement les les comment dirais-je la réussite C'est pour simplement le bien-être de la population. Aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on a fait. On a fait une marche pacifique pour tout simplement aller au niveau de la route. On pouvait barrer la route. On la route à 5 minutes pour barrer la route. Mais nous, nous ne marchons pas sur ça. Nous n'avons pas une autorisation de marche. Donc on n'a pas le droit de barrer la route. Même si c'est 5 minutes, on n'a pas le droit. Mais la prochaine fois, si une population demande, fait appel, fait des lettres, fait des demandes et qu'il n'y a pas de réponse, donc la population peut agir lui-même. Et que ça, ça peut poser un problème entre population et co cohabitation. Donc nous, on ne pourrait pas en arriver à, à ça. On fait appel à M. le maire de venir nous aider à enlever ça et sortir un arrêté. Qu'on enlève les enclos des moutons qu'on met dans les rues, kon enlève les voitures qui ne fonctionnent plus dans les rues et que nous-mêmes, nous-mêmes, nous, on se fasse violence entre nous. ci loolee am na it yeneen problème yu ci dolleeku yu mu mel nii problème assainissement waaye it insécurité bi nga xamante ne moo nekk ci gox bi. ñu ñu nga xam ne route nationale numéro un daf ñëw tëj. ñu ñëwaat autoroute à péage bi tëj ñu ñu nekk ci digg bi doon benn pot boo xamante ni ku ñëw rek jaa bassin yi nag quatre bassin wala trois bassin mi ngi ñu wër te amaluñu benn njariñ benn njariñ amaluñu buñ ñu def ubaloon basin bi sax defal ñu ci marché sax ñu sant ñu mën cee liggéey basin boo fi gis rek war naa mën a teg benn entreprise boo xam ne war naa mën a jël ci doomu dëkk bi ñu ciy liggéey mhm. waaye amuñu xam boobu ki ñu jiite amul xam-xam Moussa Fall man maay wax ak yow amis la conseil municipal mooy wax ak yow munoo munoo wala liñ bëgg munaloo ñu ko léegi nag solution ci boppam lañ soxla tey nu mu gën a gaawee ñoo sonn waa EFAS ñëw leen ngeen dimbale ñu ñëw leen ngeen dimbale ñu li ngeen ñu defal arrangé wuñu ba ngeen ñu ko defalee ba pare lenn rek ngeen ñu defalee muy benn terrain synthétique benn terrain boo xam ne dañ fay defee sport jariñu ñu dara liñ soxla du loolu dëkk bi ñu yeewoo amuñu case de tout petit amuñu école bu suñ doom yi jàngee buñ feebaree dañuy dugg ci biir camp bi wala ñuy dem di tongtongaan ci yeneen i yeneen i quartier loolu ci bopp poste de santé sax amuñ te am nañ espace yoo xam ne dafay des. defal ci suñu bassin bi parce que bassin bi ñun wu ñu ko ñu ñëw déjà defal ñu fi bassin yoo xam ne dafa enclavé complètement suñu quartier bi amul fooy aw te doo fa romb bassin moustique sonal ñu gisuñu maire boo xam ne mën nañu defal opération de sapoudrage amuñu ko. da ngay toog ay ati ati at doo gis opération sapoudrage ci koñ bi mën naa ne li ngay gis fii ci ay moustique muy weñ di yoo di insecte amul beneen quartier boo xam ne mën nga ko faa gis ndax lan amuñu autorité bu ñu ci taxawal mais man maire buñ ko falee pour lan la du pour mu taxaw ci euh, li nga xam ne moom mooy besoin euh, population wa mais gisuñu suñu maire dégguñu suñu maire kon lii moom dañ ñuy jox waa Eiffage benn ultimatum boo xam ne nañu wax ci ñun suñu waxul ci ñun dinañ baare autoroute à péage bi te suñu ko baaree dina metti trop parce que fii ku ragal wala ku ñàkk fayda amu fi mais nag dañ ñuy yar lu ñuy def rek dañ koy def ci yar teggin ak yoon revendiquer suñuy droit ci jàmm ak salaam waaw. déjà feebar bi nekk ci dëkk bi ba Moussa Fall faloo ba léegi musul def waxuma la sax curage population ñoom ñooy ñoom ñooy volonté di ko def mais musul sax jël pompe pompe bassin yi mais loolu moo waral nag tey xoolal ñun Tivaouane Lansar nu ñu nu ñu bassin yi def boo ñëwee Poste Thiaroye bassin fa suñu sot aussi bassin maanaam bassin yoo ñu wër léegi ñun coono bi ñu bassin yi teg yëpp yëpp finalement mooy lan agression bi dañ ci ji mooy bi gis nañ aussi yoo yi ndim ñuy ndim ñuy sonalee te gis ngañ maladie feebar day gën a day gën a bëri bëri bëri bëri bëri te booba léegi léegi le maire Moussa Fall réagirul applique si moom saa ñu fa duggee ñoo dugg man rek mooy nax nañ population Tivaouane teg saaw précisément à Tivaouane Lansar kon xam nañ ne coono yi ñuy dund nag dañoo sonn dañoo maar moo tax tey ñu taxaw pour jàkkaarloo askan bi waxuñoo sax maire mais dañuy interpeller la sous-préfet mu ñëw à Tivaouane Lansar xoolal boppam xoolal boppam li nekk ci dëkk bi fii nii man jàpp naa ne sous-préfet rek moo ko mën a moo ko mën xale bi démb dañoo yendoo toog fii di defal cere tam xarit mu yendoo toog ci man parce que xale bi dafa xaw a handicapé noonu la judduwaale mënul wax mënul dara day toog sama wet rek mais nag day génn lu bari ma daw di ko ci buntu kër gi démb nag mu yendoo toog sama wet ba 18 mu daw génn ma jël ko indi ko ndekete jaaraat na sama ginnaaw mu dawaat génn bi mu dawaatee génn bi ma koy jël bi may daw ba tolloog buntu kër gi laay dégg waa mbedd mi di yuux ma génn rek yem ci oto kavion bi di jàll ma dëppaat noonu laa delluwaatee mënuma koo xool. waaw parce que kër gii ma taxaloon rek am na koo xam ne sama benn moroom la. doomam mook sama doom bu góor bi taaw bu góor bi ñoo maase moom jour bi ko oto bi di fil moom tamit ci boolu añukaay bi la xale bi dawee di daw di génn rek te santeeg oto bi muy première fois amaan na beneen si bi décembre bi passé ak tey sama doom am na beneen xale tamit ci ginnaaw nii rek maanaam ñeenti xale am nañ ko fii ci koñ bi te yëpp ci oto yi jaar fii ci koñ bi la te fii du tali koñ la amuñu doo daan amuñu dara amuñ dara ñu ñooy daw rek di jàpp suñu ay doom toujours li gën a metti na mooy xale boo xam ne dafa handicapé papaam gaañu même pas quatre mois maa ngi doog a mureeku simmeeku nii ki damaa simmi rek même pas une semaine la bi may daw di ko dabi rek mu oto bi yanu ko ñun bu 18 heures xësee ba jot rek ku am sa oto bu yàqu fii nga koy ñëw gaare ku am sa oto boo wàccee liggéey ak foo mën a dëkk jàmm gën jeg saaw foo mën a dëkk fi nga ñëw gaare suñu koñ gardien yi ñëw récupérer seen xaalis def ci seen poos ñun boo amoon tey malaat sax bëgg a génn guddi doo am foo jaar da ngay moytu oto yi ñun dañ daan gaare ba fii suñu buntu kër taf buntu kër gi sama borom kër moo xeex loolu ba loolu xaw fee wàññeeku mu def fi ay puno pour di xalaat ni ëllëg bu ñu amee malaat guddi du ñu am fuñ jaar kon ñun oto yu yàqu yi sonal nañ ñu fii oto bu yàqu gaare na fii benn xale kër gi ñu taxalool même kenn beneen xale bi fi gaañu woon xale dugg na ci biir oto bi gaañu fi ba am deux jours ay mbokkam di ko wër mu dugg ci biir oto bu yàqu bi oto bi ñu baas ko mu tëju xam nga loolu yëpp metti na kon tey sama doom man tamit bu ci dalee damay xam ni kon ñooñu daloon ñooñu loolu leen daloon man tamit dal na la man sama doom la 20 octobre lay am 7 waaw. waaw octobre bii ñu ma mënut a wax mun dara dama doon xaar pour bu ma simmee nii suba suba suba kii moo ma boole woon ak waa Taalibu Daabo pour ma mën koo yóbbu Taalibu Daabo ñu dimbali ma ci. parce que comme nekkatuma ak dama doon wuti liggéey pour daan sama doole. di interpeller premier magistrat de la commune de la commune ak it autorités yi nekk ci gouvernement bu Sénégal ngir rek ñu mun a saafaral problème bi nga xamante ne moo nekk ci quartier Lamsar foofe ci tableau Tivaouane tableau Tivaouane laata askan wi di jël seeni responsabilité fajal seeni bopp problème yooyu